Yes Habillement est une entreprise de confection de vêtements qui a démarré ses activités en 2016. Nous sommes spécialisés dans la confection de costumes africains, chemises africaines, tenues de travail industriel, tenues hôtellerie, blouses, uniformes, etc. Nous travaillons en collaboration avec nos partenaires. Le partenaire peut avoir tous ses produits avec son logo et son numéro de téléphone. Et s'il s'est dessiné, il peut proposer ses propres motifs en format DST. La réalisation de ce projet, c'est entre autres grâce à un personnel dynamique, professionnel et jeune. Nous ouvrons nos portes à tous collaborateurs africains et international. kokan la le ne Serigne Diaby kokan la ñu borom sijaada bi grand marabout de la Casamance doté d'une dimension spirituelle très élevée même mal la ko wax set di voyant hors pair Safara ay jafé jafé moma ci doy ay buntu yu tëju mo ci gaaw dafay fay fajj rab jàpp mbaa ku sonal faiblesse sexuelle ou impuissance yeen ñi am jafé jafé ci seen biir sey sëy ngeen nga bëgg retrouver sa ex mo xam muy mba ci geen yeen ñi jongante ngay passer concours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 yéen mbokki Thiès mbokki Kajoor ah dama seen rongoñ fer na waaw waaw sunuy rongoñ fer na ndaxte nag dañ doon toppandoo di wëri ba Ndakaaru cal Joob ngir am kër gu rafet dama ni la loolu jeex na fi tàkk tey ak EDM établissement Daaru Minan dama la sunuy rongoñ fer na ndaxte nag lépp lu jëm ci tabax waaw tabax ah kay da samp sa kër kay ma wax la lépp luy matériel quincaillerie EDM établissement Touba Daaru Minan Diagne et frère andil nañ la bu baax la am ci matériel de toute nouvelle génération Manila électricien yi mom dañu fa sax abonné ndax li ci lampe décoration dama ni duma la limal lépp lu jëm ci électricité EDM établissement Touba la ci la rafet la ko askan ah kay EDM Touba frère ñi né nañu ñoo bañ duñu ak lu baax la Tamani le la daal bañ sa bopp weesuwul rombo EDM ay pompe suppresseur d'eau ay tuyau PVC original damale la ñi bàyyi wuñu dara lépp luy matérielu construction bo fa démé ñu jaay la original ba ci ay prix yu abordable sen tu asamaan dal jarul buuxante wa EDM établissement Touba Darou Minan Diagne e frère ñu ngi fi ci Thiès ci quartier Touba Thiès gi ci marché Moussante waaw waaw xam ni ñépp xaar ma joxe numéro téléphone yi jël 77 539 25 81 wala 33 951 11 83 Roydal Doudourogpi du EDM établissement Darou Minan ndaw dëkk bu gëna rafet ci Sénégal mandanyma tumaltuma wedi tuma mandanyma tumaltuma wax ji ñaaw na ba jaay ba to na dootul rafet tax nga noon yi kontaan di mari fu ma romb ñu joxoñ seytaani waxul dëgg waaye yàq ni xalaate dañ ma tuumaal tuuma man dañ ma tuumaal xalal loo deful dafa metti ba tax na war nañu xool ki ñuy waxal ki man mi dem roñ nañu ñew jigen du yor jukkoy xorondong ah yenn yi nak boko mëne ci xana nga war ko rus chaque minute nga jël say bagage dem suñu waxee nga ñëwaat yow affaire yi kum ko bëgg nga ko bu mëno ko muñ kay da ngay tok rek assumer nak dal di muñ ah way xalé bu jigen bo xamanteni suñ la né sa bët bi suufa ngi sax nga dem seen kër nit du ñak man dal am luma metti ama ma vraiment ah! yow nak tay lima lay mere mere mere mere yëpp tay mom dama d'accord ak yow mais jigéen ju baax tamit day xam lu ñuy sëyee mais 1 2 3 nga genn après ñëwaat 1 2 3 genn ñëwaat ah, tamit da ngay tok nga sey mëno nga nga tok seen kër. man xax nak sumay sey ci kër ba bëgguñu ma ma roñ samay bagar dem ñoo ñu nekk seen jamm di tek ataay di ataay lu neex kenn fenaluñu kenn yóbbuwuñu kenn toogewuñu ah ñu ci whatsapp bi ñu statut duñu sant yalla waye bu ne gan gi layna na rek mu roj ay bagage am ñëw ah li tamit bu amul mo dina blessé métti na torop jeeg da ngay am jom nak bo ñibé da ngay toog seen kër parce que ñun bëgguñu la deug la mëna né ne yow mom dama bëgg nga am pat ndax xam nga lu la doy nga doon goor ni xeyo gontoo lo nday lo bay au contraire yaay ak bay ñola yor yow mom bu ñepp dee wax da nga war abou pat té nopi yow nak mom da am lu la xam nga muy ban man tak nañ ma sama jëkkar nopp na ma suma dé roñ-roñ aussi tamit chaque jour moom may jël ci kon xam nga bëgg na ma. yow ki nga fi indi waroo ko fi wono a dugal man ngay sama xarit di sama doomu nday mi tay mom tooñ nga ma de kii nga xam yaayam wala ay mbokam wala da daf dang ko rombu ci mbedd bi mu jaxlé yaayo la wala nu mu démé ni ki mo waro ko fi wona indi ndax gis nga xalé bi ngay gis dak na ko fi guddi dak ko fi becc moy xalé yi nga xamanteni dañuy taxawaalu rek fii la ñew di wax ay waxi damel ak yu kenn xamul becc ak ma di ko fi dak bimu fi mujjé ay waxu yu deugër la fi duggé nuyoo sax jaaru ja xam nga ni xale bu am yar loolu du ko def tamit ah nga for ko ci mbedd mi gàddu ko indi ma ko yow tamit am na yoo xamante ni yow it koy def nga tàggu ma bokk yaay ah? hmm. hmm. yaa neex rek. <laughs> lu xew li ma la wax ni dalaa def ay rek. <laughs> ko yow xamoo kii. Ah, nu ma koy xamee man kii kat ci dammel laa ko xamee. ak mu fi waxu di duggu di ak damel euh fuma koy xamé mo kéro bisoko gisoo ko woon ma ko woowee da doon nelaw. kéro kañ. ah ki moy séré kéro bu ñëwé kër kan mooy Siré. mooy Siré Siré gii de. ñu ñu yi nga may yi nga yi ay def ak di ma ko wax nga ni ki moy séré mom la moy séré kéro bi nga ñëwé xam nga da doon nelaw moo tax yeewu ko. yow bi ma sa kër ta ngay woté ki mom mi nga doon naa yaatu. lii de mooy siré sa siré ma de moog joojo xam nga joojo mooy rakk ji. waaw moom mooy yaa ma doon wax problème yi fi am ak yooyu yëpp ak dafa ëmb ak ah kon damel damel sa doom ji la la la ëmbal siré mi la ëmbal siré mi bi ma ko gëjee gis. dafa yàgg bi muy xale bu ndaw. ah, ah? loolu moo tax looloo tax keroog ba ma ñëwee ci kër ga ma bëggoon koo gis. xam nga yaa ngi koy woo sax man la bàyyi ko comme day nelaw. dama ko gëj gis torop sax. wax ji wax ji yëpp damel moo fi moo fi moo fi indi lii. aja kon yow yaa jur damel. ah damel sama doom la sa damel ma. sa damel mi nga xamante ni bu ma daa woon di tukki yaay téye yaay xëccanteeg man yóbbu jardin ànd ak moom fu ne ba ñëpp sax yaakaaroon ne sa doom la <laughs> sa damel ma la de ay ma gis nga de man maa ngi xamanteek sa doom guddi mu feebaree nga ñëw indil ma ko noonu laf laf ko noonu ñëw sànni ma ko daw yaa ragal <laughs> jaaxle bay bëgg dee sa damel ma la de hmm? waye bul tit bul jaxlé bul tit bul jaxlé gannaaw lii xamewuma ko woon nii xamee naa ko nii tey jii demal nga teud nga nelaw lula jaxalon ci côté bi mom bayiko sama loxo damel moy ki nga xamanteni par force lay nangu birbi, bi par force xam nga li, li, li, li. daf ma naqadi sax tay ji bu don sama sagu damay gaddu waru gër ñew ne la ki ñu ñu am ah dammel laa bëgg nga may ko sir waye ni mu ni lu yalla tuddu rek kenn mënu ci dara waye na nga teud nelaw baye lepp sama loxo. baye lepp sama loxo. mais yow takko seyñu la baro luddul top xalé xale bu tayee ya dammeel suba alpha ginnaaw waati suba paté wala amul da ngay tok raccé ko di mballu kon yow am nga la doy. yow nak mom na ñëk tay na muñju tay ngay lijjanti sama dem mbaa sama dik defal ni sama mag moom takk na luy dem ak luy dik yow ana li nga tak loolu sa yoon nekk si gis nga man duma sa morom booy taxaw nii di tontu. yow ma jóg. du ma sax góoram yi nekk fii di neexal affaire yooyu noonu boo ma waxee loolu warut a wax damay jug léegi li jënd la nga taxaw nag yow mu lay dara dugg. yéen de seen lan la. mais lan la yéen mais lan la. yéen yéen a nekkoon ci jàmm. sa lii ngay lijjanti laa wax sa lii ngay lijjanti. sa lii non du du yow xoolal du yow yaa koy lijjanti et puis ma jóg tais-toi yéen lan la vous êtes très indiscipliné mais le minimum sax ngeen respecté seen jabaru grand frère ah na mujj tey nag je vous le permets plus que ça soit la dernière fois Amina àggal si biir. te du lenn seen loxo. c'est quoi ça soxore sen grand frère kurun grand frère nekkul woon ci jàmm ah triste jeex tàkk feebar jabaram ñëw mu ne war a nekkaat ci jàmm ngeen bëgg ko ko xañ ngeen ah? te bon dara oo yaay li ñu fi. Eh, du merde yow xanaa balaa ngay laaj ñu luñ fii wut nga dugg sa dugg bii man man yow damel yow. billaay yow yaa ñàkk jom damel yow damel ndekete séré mi nga amal yow damel ki nga amal xam nga lu ma sekk ak ndeyam xam nga ko ah ay damel yow daal sa àdduna nii rek. yow yaay ki nga xamanteni biye bo nga génne sa xel ay bañ ëmb bi yaay ki koy nangu ak jamm ak salam topato ko ba yalla may ko bopam loolu la am luma lay wax lo doon topato ben xamna sax joto ci def dara tax yow nga ñak jom yaangi naan man la du man waye ëmb bi bu lu ko jéñee yaw la siré mi dama bëgg nga topato ba yalla may ko bopam lu nuy wax après lu wax ko yow ni nga mel kii daal ñooñu nii la mel gis nga fi mu nekk nii ay problème rek la may indi jiiñ nañ ko fi biir mu ngi nii man daal mu ngi nii rek la ma la doon wax ci moom tey jii la ma kii daal aw sax lu may wax li ma la wax nag dégg nga ko mu bon bon bon bon war ngaa maa mën a xàmme yow tamit yow man amul fu ma jaarul ak yow waroo baa mën a fàtte en espace de quelque années ah yow bo daan febar sa yaay daw la jégué man ma la daan té faj la bëgg nga ma jox jardin d'enfant bis bu né ah waxuma la dara waye bëgguma won kula laal koñ ba kula laal damay xeex ak yow ba ñëpp def na né man ma la jur ki jurul la dé man mi ma la jur amo dara dara dara dara lo moy lu dul jël sama dom ëmbël ko may wax nga di ma toroxal ñak ma kessa ah mel comme ku dul yow bi muy door dugg sama kër damaa amoon ci moom confiance. xam nga lu ma bëgg ah nga seetal sa xol bii def ci glace nee naa la problème bii yow moomoo sama bos la ndax ñoom ñaar ñëpp maa leen bokk jur. damaa bëgg nga tëdd nelaw dammel mi doful ci ne jàpp ko li ma ko wax par force la koy def yow lu la naqadi woon rek na la neex tey dammel bu soobee dootu la xooleeti lu dul bëtu ndey yow kii nga xamante ne amul coono gu mu sonn ci yow ba koñ ba ñëpp naan ndax moom moo la jur ndekete yoo këram nga dugg def fa njombe ji yow ku dem dellu si waat foog ni fawu kaay lu waay di ren di tey sa loxo lay naaje lu waay di ren di tey sa loxo lay naa yow salaam maalekum maalekum maaleykum salaam nga commencé ci ci fabi ak ma jóg ngir yàlla toogal te sëy si sëy bi te nga def ñi kii sa jëkkër ju ndaw kee sa njëkkee yéen bari wala ngeen nekk ci kër gi bët bu rusul toj nag yow tam Amina lan moo fi jar lii ah te nga réglé réglé nag da nga wara xol fiñ la jële te xam ci sa bi li bi di yàlla la kérok bay góor ji joggé Dakar la romb pout fekk la plateau mango ba nga ba mu jënd ci yow lek mango ja neex mu ne ma yaay ki ma jaay mango ni mu jonga ma ah ba sey am ci tay jii kon lan la lan mo fi jar mbilim nek nga ni sa yaay góor a yor ma góor a dara yow xor nga xol sa bop ndax nga toll non nga fi non nga fi andale nit day wax wax ju rafet yow góor a bu la yoru dit yaa ngi lekk yaa ngi naan sa néeg macha allah ligg si ku la xool xoolaat la ah nit jigéen daal nag day jàng wax ju rafet. ay waay toujours Amina chaque jour Amina encore Amina Amina daal muy mbir bu gàtt bi neex a tëb waaye ba tey garaawul xam nga nee nga man lenn neexu la ci man le fait que chaque jour ma naan góora a yoruma maa ko yor. yow tamit de leen neexuma ci yow xam nga muy lan mbilim lacc nga naan ma fa nga jóge démb ak seen waa kër amuñu dara daraak meluñu neen nag bi nga fi ñëw ni nga meloon <laughs> waaw dëgg la ñun de amuñu dara amuñu xaalis waaye nag am nañ loo xamante ni moo gën xaalis xam nga muy lan ngor ak yàlla waaw yow nag yow nag Amina kon amee ngor ak yàlla kon nun la téye fii ci kër gi war nga koo muñ bu dee ngor boobu ngay woote mi ci yow. beneen bi ci des man damay sant sama yaay roñ roñewul dëkkul tey si talamin ginnaaw suba jaxaaw ginnaaw waati suba ersan ñun kër ga ñu dëkkuñoo ko moom yéen nag moom bu fekkee am ngeen kër gi ngeen dëkk lañ leen koo aal. eh Amina. góor ay nopp ñuy dégg. boo dee wax ak sama yaay dama bëgg ngay baissé sa ton yow egsee goo sax delluwaat sama nii. Saya kuasa. ça yow nga ni kër gi ñu dëkk yow nga ni lan deh. li nga wax dia gak mah. ma sonal dégg nga ma yow kër gi ñu sama papa depuis combien ya, ya, d'années jënd kër gi ah, ñu ya, moom suñu kër yow lii mu li la sama yaay wax moo tax nga bëgg non yow da ngay sos wala da ngay mais qu'est-ce que c'est que ça suñu kër gi yow Amina bal créer ak sos ak woi da ngay laaj wala da nga bëgg xam olof njaay neen li ci kanam rawuli li man dañ ma tuumaal tuuma weddi tuuma man dañ ma tuumaal